baan wala passe-partout xalaas bu njëkk lan bu njëkk lan waaw bi gaa yi màggalee ak bi ñuy waaj a màggal am na ñeneen ñoo xam ne ci dëkk bi lañ màggalee. doon raas biir su nit ñi nekkee Touba. gaa yi ñëw fi nekk ci dëkk bi di cambriolé moo xam Dakar la wala Mbour la wala Thiès la. Hmm. su la neexee ñu jëkkee bu Mbour bi déglu kii liñ ko def. ayca. bañ faa ñëw ay 4 heures du matin. boobu maa ngi wàcc màggal. boobu maa ngi waaj waaj a màggali mu xëyee laa waroon màggali bañ ñëwee dañoo am benn oto buñ sàcc sama ginnaaw kër ak benn Pajero la Nissan Patrol oto bi feeñ na ñoom ñoo ko dañ koo ci def ci ñëw euh, dajji kër gi agressé ma ci bañ dajjee kër gi ma yëg naa leen ñuy ñëw sama kër dafa am ay caméra bu ma leen yëgee ñi gaare ci laa tëb boo xoolee vidéo yi ba ma tëbee euh, di bëgg a woote police di nit xool leen ñi gaare ci lañ profité woon dajji bunt bi ci kaw bañ dajjee bunt bi ci kaw dugg kenn ku dóor ma jaasi sama sama euh, bopp bi ci ginnaaw ci saal bi la ma dóor taatu jaasi la ma dóor ba mu ko dóoree euh, ne ma da ngay wax fan la xaalis bi nekk nee na dañ leen a wax ne leen kër gi am na koppar foor nee na loolu lañ leen wax ma ne leen fii amul koppar léegi man leen fii amul koppar foor fekk sama xaalis boobu sama sac maa ngi yoroon lépp lépp un million trois cent moo nekkoon sama sacoche lu tax mu mat 3 millions mooy samay téléphone dañ ko yóbbu sama écran plat bu ma jëndoon ay 600000 sama écran bu ci nekk samay jasneer samay yére samay bagage yi nekkoon si kër gi yëpp lañ yóbbu def ko ci oto bi sàcc ko yóbbu man ndaw laa rek buy daan doole man mbuur laa dëkk sama kër ku ma dëkk maa ko moom ba ma fa dëkkee léegi matul 2 ans dama koo tabax matul 2 ans on la ci ginnaaw ñoom nee nañ dañ leen a yabal te nee ñu leen yabal dañu leen kër gi am na koppar fort te man yoruma koppar fort kër gi. damay def location véhicule location vente lay def foto bañ sàccoon dañoo dem ba dañoo dem ba euh, Médina Salaam sànni fa oto bi maa ngi fa lañ sànni oto bi léegi borom oto bi gis na oto bi borom oto bi jox nañ ko otoom voilà mais police nag mi ngi def enquête am waaw ñu ngi def seen enquête waaye nag. dañ koo cambriolé ay xaram. gars yi dañoo armé wu de. waa jaasee ki fetal lañu yor. waa mais fan la nit di muccee song ko. Hmm? yóbbul mat ay douze xaram. fu nit di muccee. déglu ko déglu waa ji. maa ngi tudd Amadou Diawara dëkk Thiès quartier Médina Fall. waaw man la malfrats yi ñëwoon sama kër euh, samedi ci guddi ay trois heures trente vers trois heures trente quatre heures. quatre heures du matin attaqué ma. ñu ma attaqué ay ñëw assiégé kër gi ñii tëb dugg ci biir kër gi ñaar ñi tëb dugg ñett lañu ñaar ñi dañu tëb dugg ci biir kër gi kenn ki taxaw ci biti yore benn fusil d'assaut calibre 12 di ñëw pour jël samay xar parce que dama yoroon ay xar ci biir kër gi jël nañ fi sama fukki xaru raas ay uda ak ay laadum waaw loolu lañ fi jël waaw ñëw nag ñu ñoom dañu ñëw seen intention moo doon defante moo doon seen intention parce que dañu ñëwoon moom xam naa ne pour xeex kon xam naa ni contexte bi màggal la màggal gi daanaka kenn newu ci koñ bi ah moo tax ñu ñëw ñëw pour xeex biñ ñëwee nag man teel naa leen a yëg ak sama soxna bi ma leen yëgee ma jóg ñoom ñu xam ne jóg naa kenn ki daal di taxaw ba mu ubbee sama personne bi nekk ci mbedd mi mu jubale ma armam ma delloo personne bi beneen bi bi ci personne bi ci buntu kër gi bu ma ko ubbee tamit keneen ki ñëw di yoot jël jaase ji tabaxal ko ci fenêtre bi ma delloowaat personne bi alors su ma ubbee personne bi ñu wur xeer dóor ci su ma ubbee personne bi beneen personne bi ñuy jël fusil bi jubale ko personne bi visé visé fenêtre bi sama jabar nekk di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu mais comme contexte màggal la euh, nit ñi bariwuñu daanaka doo gis kenn ku la wallu euh, ñu fa jotoon a des tamit di ñëw di wallu si amuñu ay moyen parce que ils étaient pas armés te ñii ils étaient armés ñii ak seen fetal ñii ak seen jaasi kon la dal ci seen kaw yomb alors noonu la ñu yéege ci biir kër gi kenn ki ñëw taxaw ci sama véranda di ma pour ma génn am na sama benn jarbaat moom mi ngi ci beneen bâtiment bi xaw na sore moom gis na ko mu ngi taxaw di xaar man ma wàcc ci veranda bi pour ñu defante ak man ñu yore arme sama jabar insisté na ma doo génn ah génn ma mais mu lu ma metti parce que je me sentais humilié parce que sàcc sa xëy na da bett mais kii ñëw di jël sa alal nga jàkkaar jàkkaarloog moom te loo ci dara loolu humiliation jël nañ nag sama fukki xar jël nañ sama fukki xar jël nañ topp naa leen nag ma leen toppee ah ñu tiré fetal ma sama benn xarit bi mu génnee bi ma ko woowee téléphone mu génn daanaka ba mu génne bundu këram benn xar yaa ngi ne di dem ci la ñu dooraat beneen bal bi ñu toppaat leen tuuti ñu dooraat beneen bal bi na benn booy Jakarta moo mu jaar fa moom gis seen bi nu mu demee ah, ci la daawee dem police Medina Fall mu demee police Medina Fall aussi man après dama dem taal sama oto dem toppi sàcc yi mais ci liñ ma wax nee nañ moom bi mu ñëwee nee na police nee nañu amuñu élément ñaari élément la am waaw mais nee mooy après police jaar na fa mu fa jaaree tamit laajte fan la affaire yi amoon ñu ne ko fii mu ne ana gars yi ñu ne leen nii lañ dem mais après dañoo wàññeeku waat daal dem tëddi ci information yi ma parce que man boobu talna sama ma leen toppee di leen topp di leen ba ñu yegg si juuti bi xam ne fi mu toll nii moom y'a plus de solution ci pour jaar ci ZAC yi ma jaar police ngent wax leen ko vraiment ñoo ngi ñu taal seen oto ànd ak ay ñu dem ba ZAC bi wër ZAC bi ba jasab ñu tourné waat ñu ba ci raay bi ñu wàcc ne nañ dem topp leen ci biir àll bi effectivement ñoom dem nañu sol booy yi booy yi nga xam ne ñoo fa jotoon nekk ñëpp dañ leen na sol ci biir oto bi ànd ak ñoom dem ba ci biir gisuñu dara ñuy jéem ñu ñu retourné waat mais bi ñu wàccee tamit ñu jéem a dox mais nag comme que condition yi tamit favorable woon parce que dafa lëndëm foofu vraiment dafa lëndëm ñax mi dafa bari alors ñu perdre seen trace perdre seen trace mais ñoom daal seen intention moo doon rey rey daal moo doon seen intention waaw sama buntu kër yi dama ko sécuriser woon mais ils ont le temps dajj ko kanaar yi nga xam ne moom laa kanaar daan xare aussi ñoom seen pince ku ban dagg yi dagg dagg kan kaddanaa yi génn xar yi daal dem seen yoon waaw mbir mi daal noonu la demee waaw noonu la demee waaw kon bi ne ñëpp yuuxu nañu fu yuux mën a toll mais amuñu soutien lii ay noir bi mag la moom dafa weex ak yeneen xaru jigéen yeeg beneen maal boo xam ne bi moom it dafa am euh, lu noir ci baat bi daal noonu la demee waaw ñoom la jaaxle lool chaque jour ñu ngi ñuy bii c'est la deuxième fois ñuy ñëw première fois bi biñ ñëwee dama ñu teel a dem daw mais cette fois ci dawuñu parce que dañoo ñëwoon pour xeex préparé woon nañ seen combat préparé woon nañ lépp dañoo ñëwoon pour xeex pour jël bakkan parce que xam nañ ni màggal gi kenn nekk fii te man j'étais seul dans la maison maanaam sama benn jabaru rek ak sama soxna ñun ñoo fi nekkoon waaw ah am nañ nag ak jaaxle loolu ñuy ñaan autorités yi ñu dimbali ñu dimbali ñu ci sàcc si sàcc si sonal nañu waa Medina Fall sonal nañu waa Kawsara sonal nañu waa Taax Kaw te tout le temps rek c'est le même parce que group bi ñëw démb barki de janvier passé même groupe bi la même élément yi la parce que ñëpp gis naa li kon ñuy ñaan ndimbal waaw da yi wax sonn nañu on est fatigué xalaas audio buy circulé benn waaye buy wax ne comme authentifié wuñ ko moo tax nanguwuñ ci jël benn kii mais benn waaye buy wax ne am na benn village bu tudd Mbëriko fekk nañ fa ay xar yu ñu tënk ci ay barax. Mhm. ba ñu jël ko yóbbu ko ko chef de village bi. Mhm. waa ji mi ngi naan woo nañ ko waan naa boo ko ko. Mhm. wóoruñu nag parce que ci même moment bi la ñu envoyé audio ndaw si dañ koo laaj jàng xale bu jigéen bu nekk ci kër. oor ya ko tantaam dénkoon. xaalis ba ko tantaam dénkoon. lépp ñu roñ ko mu ro jël dem seen kër gàddu lépp indil ko waa ji. lan la xanaa dañ ko gën a mën. déglu ko kon. dama doon jóge cité Macky Faye sama doomu sœur yi laa yóbboon foofu bu may ñibbisi nag euh, diggante terminus P7 bi ak sama kër benn pa dab ma si yoon daf ma woo ba sonn faale ma ko mu jékki-jékki rek ñëw débarqué sama kanam mais déggul wolof nag français rek lay làkk mu ne pour ma dimbale ko te yàlla tax daa am benn shérif bu muy xool fii si koñ bi cité asek naa la dikkoon gouvernement bi moo ko indi Sénégal pour muy dimbale ñoo xamante ne mosuñoo am doom après ma ne ko li mu ne en plus mu ne ma mu ngi yore benn oto bu weex ma ne ko man de li ngay wax ni dara laa si xamul mu ne ma yow moom xanaa dëkkoo si koñ bi ma ne ko si si koñ bi laa dëkk mais liggéey wax ci ñibbi sama kër laa xam mu ne ma léegi ndax mënu ma laa jal benn xale bu góor ma ne ko man fii mënu ma la fi laajal kenn laa jal ko sa bopp mu ne ma naa ko dimbale rek déggul wolof ma ne ko du ñàkk am na ñu dégg français diggante bu ñuy wax loolu nag juste am benn grand bu ma romb grand bi bu muy romb mel ne kuy def semblant di romb xaw ma daal bu muy romb rek mu ne ma wool ma grand bi nga laajal ma ne ko woo ko mu insisté mu ne ma ma après la ne grand bi ñëw grand bu mu ñëwee nag mu laaj ko mu ne ma ne ko grand baa nii laaj ko xaaral man ma dem mu ne ma déet ma ko grand bi grand bi mu ne ma ah ma ne problème bi lan la dégguma français nag anglais ak wolof rek laa dégg. temps bi mu ne anglais a wolof rek la dégg léegi nag paa bi du ma supplier mu ne ma ngir yàlla naa ko dimbale rek te yàlla tax naa ko dimbale rek te yàlla tax après man tamit sama xolu yermande bi ma taxaw xaar def kii bi jottali wax ji fekk paa bi muy ñàkk tooy xepp moo ko xale bu góor bi ma ne paa bi daa am benn shérif bu muy seet nee na shérif bi fii la nekkoon cité Asegna mais xamatul fu mu nekk mu ngi koy woo ba sonn te man bu ma ko woowee nekkoon ko na ko nee naa ko ne insisté peut-être problème réseau la. après ma wax loolu waa ji grand bi toog benn cinq minutes bu ndaw mu jékki-jékki rek xalaat mu ne effectivement moom xam na shérif bi shérif bi mu ngi Almadi côté état kii ambassade des États-Unis mais nee na moom fu mu xale bu góor bi nee na moom fu mu nekk nii daa yàkkamte parce que daa am fu muy dem. après ma wax loolu paa bi paa bi moo ko waxee après mu ne ma waxaatal xale bu góor bi fu mu jëm ne xam naa ko ne ko jigéen lay dem seet te jigéen bi dafa accouché ay cheikh benn cheikh bi dafa dellu moo tax mu yàkkamte après ma wax loolu grand bi bu ma waxee loolu grand bi xale bu góor bi xale bu góor bi mel ne ku choqué tiit nag mu ne ma nel waa ji bëgg naa ko dimbale lool mu ne naa wax paa bi bëgg na ko dimbale mais ndax paa bi tamit mën na ko dimbale moom te yàlla tax dafa bëggoon pour ndax paa bi Euh, dem seeti jabaru nijaayam mu ñaanal ko après moom dina yóbbu paa bi ba fu muy dem après bu ñu waxee loolu ba pare paa bi mu ne ko nu mu tuddati paa bi mu ne mu ne ñu léegi man ak moom nee na bu muy ñëw fii mosoon nañ ko wax maanaam waxoon nañ ko dina fi tase benn jigéen ak benn góor boo xamante ne son xol dafa rafet dinañ ko dimbale ba lu muy seet mu gis ko mu ne moom léegi amul suñu fay naa ko wax ñaata laa bëgg mu jox ma wala euh, mu ñaanal ma ma ne ko sëñ bi man de soxloo ma xaalis ñaanal ma rek. fekk ñu taxaw si kaw tali mu ne ma léegi gars yi bu ñu gisee fii ñu dëkk suñu loxo te euh, mun na am presse bi di leen interview. wala mën na am kenn xàmmee ko mu ne ma moom am na suñu borom lu mu def si moom mais xale la da koy nëbb demi pas bi wax loolu mu ne ma léegi nañ dem juste si angle bi noonu ñu euh, si angle bi noonu rek ñu taxaw après mu téye suñu loxo ñaanal ñu. bu ñu ñaanalee léegi ba pare mu ne dina am lu ñu jox benn bag mën ko góor gi ku ku nekk dina am benn bag mais bag boobu balaa ñu koy am il faut ñu wax ko dëgg gul ak mom waaw xawma xawma nu nu nu saay di def mais pare gul ak mom xam nga wax na ni leen nag dama bëgg ngeen wax ma dëgg soo leen bëggee ma ñaanal leen ñeen mm-hmm. ñaar mais sëriñ bi di wax ak ko góor ka ñoom ñaar ñoo ànd ko jigéen ki lañ bëgg a dóor mu Ablaye Diop mayee ñu dina baax kay waaw dina baax nañ déglu. boobu balaa ñu koy am il faut mu wax ñu il faut ñu wax ko dëgg dëgg bi lan la lépp lu ñu mënta laaj ñu wax ko ñu wax ko dëgg bi daal bu mu jéem a wax loo xamante ne amul après ma laaj ku góor ki ku góor ki mu ne ma effectivement am na mu ne moom fa mu taxaw nii am na fa sept cent mille këram am na fa trois millions trois millions yooyu natt yaayam la compte bancaire am am na dix neuf million ah beneen xaalis boo xamante ne héritage la après Euh, waa ji bu mu waxee loolu waaju pare mu ne ma paa bi mu ne ma naa wax xale bu góor bi am na lu mu fàtte am na lu mu fàtte si poche am loo xamante ne du xaalisu fii après ma wax ko paa xale bu góor xale bu góor mu ne ma effectivement loolu la. mu ne ma léegi man naa ko wax lan laa denc si alal ma ne ko ah man de damay sant yàlla rek mais yoruma loo xamante ne benn somme boo xamante ne mën naa ne dañ ko denc. pour sama compte Wave am naa fa benn douze mille francs ak samay weccet sew yu ma am sama sakaamee muy kër ga. mu ne ma waa xam naa sa kër soriwul fii léegi mu ne ma am na benn maire boo xamante ne dalay dénk xaalis ma ne ko waa effectivement sama tante la ma ne ko man de wóolu bu ma wóolu wóoluwul sax doomam yi noonu ma ne ko xaalis bu ma dénk nii sax doom yi sax xamuñu ko man moom rek ñoo ko xamax yàlla mu ne ma am na mu ne ma man am naa benn chaine man ko effectivement am na benn chaîne or ma wax ko loolu mu ne ma sii am na loo fàtte man ko noo fàtte ma dem mu ne ma sii sa armoire tante am na fa nekk fàtte nga ko ma ne ko ah wax nga dëgg effectivement sa armoire tante xaalis bi fa nekk démb sax sa tante woo na la di la laaj xaalis bi nga wax ko xaalis bi fu mu nekk mais man ba tey xaw ma sama tante ñaata la jël si xaalis bi man ne ko effectivement loolu am na am saar yu mu ko wax yooyu lay tari ngay def premier angle deuxième angle troisième angle ba si troisième angle bi du buy dem du gestu du wax ak kenn day xool jubal ne tout droit dem après pas bi mu ne ma waa ji léegi ba muy dem ba muy ñëw man damay nekk di wax amin euh, waa ji mu ne naa am ñaan ñu def pour bag bi mun a wàcc léegi mu ne man naa wax amin ma ne amin bu mu ñaan lu muy ñaan ba pare mu ne xale bu góor bi na ubbi sacoche am dina gis bag bi si diggante xaalisam yi xale bu góor bi ubbi sacoche bi bu mu ko ubbee léegi mu gis benn bag euh, benn bagu xaalis mu mel ni si kaw dafa am jama comme nu mu ko waxee woon xale bu góor bi rek xale bu góor bi génnee ko xale bu góor bi mel ni ku jomme mu tiit mel ni kuy bëgg a yuuxu rek waaye paa bi mu ne ko noo bul yuuxu balaa kenn di ñoo fekk ñu fii après mu ne xale bu góor bi na ma jox bag bi man ma ñaan si bag bi après ma delloowaat ko xale bu góor bi góor bi jox ma bag bi ma ñaan si après ma delloowaat ko ko. après léegi paa bi mu ne léegi man maa si topp de léegi naa fay sama téléphone ma fay sama téléphone léegi bi ma fayee sama téléphone. Eh, mu ne ma léegi daa am ñaan yu may def képp koo xamante ne yaa ma doon def lu bon mu ne ma am na ñoo xamante ne ma doon ñu ma doon jéem a def lu bon depuis bu ma nekkee dëkk ba léegi affaire bi yëpp day feeñ si seetu mu ne ma léegi ñooñu bu ñu demee bu avoué ni nangu avoué ñoom ñoo la doon def lu bon est ce que di leen jéggal parce que am na sarax boo xamante ne boo ko deful rek ñoom dineen dof mu laaj ma ndax dinaa ko def mu laaj ma ko ñett yoon ma ne ko waa dinaa ko def léegi eh, mu ne ma sarax bi dafa simple ñetti guro yu weex ngay génne ñoom bu ñu demee ba wax dëgg bi ñetti guro yu weex ngay génne mu laaj ma sama mot de passe téléphone sept fois su ma waxee tam mu tam mu ba sept fois léegi mu ne sama téléphone bi naa ko fi bàyyi ma dem kër ga lépp lu ma lim noonu ma dem jëli ko indi ko lañ ma laajoon noonu yépp mooy chaîne or bi ak jaaro or bi ak xaalis bi ak man sew yi ma sama sakaame mu dugal ko si benn sachet indil leen ko bu ma ko indee d'abord daf ma ne yow da nga doon laajte caabi ma ne la effectivement dama doon laajte caabi parce que sama tante dama ko doon laajte caabi bi mu ne ma waaye gis na ko. ko jox ko xaalis bi ak bi ma dem ba si quatrième angle bi comme niñ ma ko waxee bul gëstu bul def dara après ma dem defi ko. ñu wax ma li ma war a tari sama tuur yaay six fois sama tuur papa six fois ak sama tuur six fois ma ñëw mel ni ku ñu yaay si ay nelaw. ma taxaw foofu 30 minutes fekk am na ñaar soxna ñu taxawoon woon si angle bi soxna si baal leen ma am na ñu ma fi taxawaloon gisoo leen ñu ne ma soxna si da nga wane ginnaaw rek ñu topp si ginnaaw ma dem ba di waaj egg sama kër mënu ma kaa muñ affaire bi mel ni comme ay gént si man mu waat ñëwaat si ñoom ma ne soxna si baal leen ma de ma ne ñaar am taxawoon naa fi ak góor gisoo leen ñu ne ma soxna si xanaa déggooñu ñaar góor ñi ngay wax noonu yow da nga wane ginnaaw rek ñu topp sa ginnaaw. après ci lañ commencé dama laaj ñu ne ma lan la ma ne la noonoo dara dem sama kër expliquer ko sama tante ak suñu waa kër yi affaire bi daal noonu la fa demee billaay tax si yaakaar boo xamante ne kenn mënu la ko wax